ànd ak ñun ñëpp di liggéey pour le compte du président Macky Sall te ñu tey jël pen ñëw teew fii ñu ngi leen di sant di leen gërëm li ñu fi dajale nag loo xam ne la moo yëngal ñëpp muy li nga xam ne mooy xew-xew yi amoon ci Sénégal fan yi te nekk xew-xew yoo xam ne violence yi ci xew nekk na loo xam ne sénégalais tàmmul di koy gis loolu nag jaaxal na nit ñi lool ma commencé nak di delloo njukkal jeunesse Sénégal rawatina jeunesse au Kaolack parce que ku nek gis na né violence yi ni mu mel ci Sénégal melu ko ci Kaolack kon war nañu delloo des suñu jeune sont une preuve de responsabilité les jeunes de la commune ou du département ou de la région de Kaolack ont fait preuve d'une responsabilité exemplaire kon il faut ñu delloo nous disons que la ndax jeunesse dafa war taxaw nekk jeunesse bu responsable surtout président de la république boo que les préoccupation bi ci préoccupations préoccupation jeune mu tegoon ay programme nous fas renforcer programme nous ñuy le président de la république ci déglu bi la jeunesse suñu jeunesse Sénégal la réponse est mu nous indi ci ngir won leen ne leen dégg naa seen kàddu danaa ci jël ay mesures pour taxaw leen loolu nag ñu ngi koy rafetlu collectif bi woote tey delloo nañu président njukkal ci loolu waaye beral nañu mention spéciale jeunesse Kaolack beral ko force de l'ordre de sécurité yi nga xam ne aussi liggéey nañu liggéey bu mucc ayib boo xam ne tax na tey li ñuy tudd ci Sénégal lu ci bari xewul fii ci Kaolack waaye ñu gërëm ci parents yi ndax parents yi nekk ci kër yi aussi joué nañ ci rôle yu am solo pour téye seeni doom pour ñaax leen donc ñu ngi sensibiliser jeunes yi yu lag rawatina yu région bi rawatina yu Sénégal ñu gën a taxaw fagaru bañ a nangu kenn yàq seen réew parce que ñoom ñooy avenir u demain suba jeunes u tey yi ñooy avenir suba te li nga xam ne dal na réew yëpp yi nga xam ne dañu am pétrole muy malédiction du pétrole son excellence le président Macky Sall bëgg ko aar ba teg loo xam ne tey pétrole bi li nga xam ne moo ci nar a génn muy njëriñ ñëpp nar ci bokk séddoo ko rawatina jeunes yi ndax dafa def réserve ba def réserve génération future yi nga xam ne ñooy ñëw ci kanam pétrole bi am nañ ci loo xam ne dañ leen ko ciy dencal. réew nag bu am pétrole walla mu am gaz ñeneen dinañ ñëw dugg ci indi fa ay coow indi fa ay guerre civile ba ñooñu dootuñu talati pétrole bi ñooña nag ñooy exploiter petrole bi en douce pour dem ak moom. wala ñi ñi exploiter exploiter retombées yoyu rek loolu bu mu dal Sénégal té jeunesse bi lañuy lancer appel ñu gëna taxaw ci seen réew balaa ñuy duggati ci dara ñu xoolaat loolu bu baax ndax am na njëriñ wala amul njëriñ li xew ci Sénégal nak ndaje tay mi dañ koy ñaawlu bokku na ci tay li tax ñu dajé fi ñu ngi koy ñaawlu mais ñu ngi féliciter le président encore une fois ci lépp li nga xam ne jël na ko muy ay mesures yoo xam ne tey dimbale nañu pour ñu mën a xeex loolu nga xam ne mooy li fi xewoon discours bi mu def discours bu am solo la mouvance bi yëpp tey bi daje fii ñu koy rafet lu ñu ngi tamit jaale ñi nga xam ne ay xale lañu te ñàkk ci seen bakkan ñu koy jaale seeni waajur di ñaan yàlla xaree leen àjjana ñi ci am ay gaañu gaañu ñu ngi leen di ñaanal yàlla may leen wér ñu jógaat ak jàmm ñu ngi tamit soutenir ñi nga xam ne ñëpp ay victimes lañu ñi nga xam ne seen matériel yàq nañu ko ñi ñu taal seen ay oto ñi ñu saccagé seeni boutique ñi ñu yàq lépp li nga xam ne seen barabu liggéeyukaay la woon seen alal yàqu ñu ngi leen di masawu ci bés bi tey fii ci Kaolack mais ñu ngi. réitéré maanaam ñu ngi feddale suñu kóllëre ci wetu président de la république son excellence Macky Sall parce que nag daf ko mérité dafa mérité Sénégal yëpp génn soutenir ko xam nañ ne loolu dina am dina am ci département de Kaolack à travers les maires dina am ci département de Nioro à travers les maires dina am ci département de Guinguinéo à travers l' association des maires te xam naa l'association des départements et des élus ñoom ñëpp dinañu def sortie yu pour nii pour euh, taxawu président de la république jaale ñi nga xam ne ñoom la seeni famille euh, am tiis euh, massawu ñi nga xam ne dañ ci am ay gaañu gaañu mais massawu ñi nga xam ne seen alal daf ci yàqu ñuy ñaan yàlla nag li yalla bu mu amati ci Sénégal Sénégal ga xamone jeune yi gën taxaw mag ñi taxaw. sensibilisation bi am Sénégal googu lañuy ñaan yàlla gën ko defaat ci xolu nit ñi ñuy rafetlu nag taxawaayu këru diine yi ak ñépp ñi nga xam ne tey société civile bi contribuer nañu ci jàmm ji nga xam ne am na ñu ñaan yàlla jàmm ji gën a sax